sayyidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi tayyibin tahirin wa ala taabiina wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla mi garanti téeréem bi ci waxam ju màgg jooju inna naxnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun di julli yonent bi sallallahu alayhi wa mi ñi bégal ci ngëneeli jàng alquran ak jàngale ko ne xayrukum man taallama alqurana wa allama kon buñ buggee waxtaan ci guddi gi ci Cheikha Mariam aaye bii ak xadis ji mën nañ koo jël mu nekk départ boo xam ne ci lañuy ñuy pour xam dayo bi nga xam ne moom la sayda al walida al oxt al aziza al xaafida al aabida naqiya cheikha mariam bin cheikh ibrahim Niass am oustaz Thierno Aaj ñu ngi lay gërëm ci xam-xam bi ñu dolli tey ci Cheikha mu am yu bari yoo xam ne gan la ci ñun te xamuñ ko di gërëm modérateur bi al oustaz Cheikh Aboubacar ibn al Khalifa Cheikh Al Hadj Abdallah ibn Cheikh Ibrahim Niass ci muqaddimaam bi nga xam ne daanaka moom tamit conférence la bàyyiwul leen lenn lu kenn mën a yokk ci jotaay bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen xam-xam yokk seen kàttan yokk seen am-am ak seen mën-mën di gërëm Chérif El Hadi Ibn Naama bin Abdallah ci waxam ju jotal ji ci cheikha nga xam ne bàyyiwu dara lu ñu war a wax te tënk na ko tënk koo xam ne ku ne mën na cee jëriñu wax na ci biir waxam ne ci cheikha la jëlee yitte ju kawe yitte ju kawe mu ne ci cheikh la ko jànge fii ñu toog ci tànt bi am na ay daara yu bari yu fi nekk yoo xam ne daara ji moom mooy seen ndey moo leen jur am na ay jàngalekat yu bari yoo xam ne daara ji moo leen tàggat moo leen préparé ba mën leen a joxe Oustaz Thierno Aaj dafa wax ci conférence bi ne cheikh jigéen la joo xam ne moo gën moo mën mën na millions yi jigéen yu melut ni moom man dama gis ci bind Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu bi muy ërrax naissance su Cheikh Mariam jigéenalu ko benn yoon dafa wax ne yaa Aysu Saar am na doom doom ji soit dafa war a nekk zakar aw unsa góor lay nekk wala jigéen euh, mais bàyyi bu mu koy ñaanal damir bi damir yi mu ko indil yépp daf ko góoral nga xamee ci ne ci xam-xamu bàyyi xamoon na ni kii jigéen la waaye liggéeyu góor lay liggéey mooy la yàlla waxtu randóoram ba uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raakiin ndax foofu góor ñi la ko booleel comme niñ ko tënkee nim gaawee tari alquran waaye bi mu ñëwee fii nii tamit jóge kawlax ñëw capital mënoon naa itteewoo taaru capital ak ni capital di di di doxee jëm ci àddina mu ne déedéet man li ma nàmp moom lay indi fii nii pour jàngale ko nekk ci environnement boo xamante ne nii tamit tàggat fa nit yar ko ci jamono jooju ku yàlla joxul ndigal dana la jafe ndax neuf avenue la nekk Médina seq ko ak Rebeuss cinéma nekkoo ko ci côté bi corniche nekkee ko ci beneen côté bi nga dem tuuti marché Tilène ak cinéma ba fa nekk nga demaat tuuti tamit marché sàndaga ak xumbaay ba fa nekk mu nekk environnement boo xam ne préparé fa ay nit ak yarleen ku amul ndigal loolu dalay jafe mu bañ jël néegam ak saalam muy chambre à coucher ak salon mu def ko daara di ci jàngale comme ci capital la nekk tamit dana jàngal njaboot gi ba kenn du leen mën ci alquran waaye tamit dana leen tàggat ci wàllu àddina ndax sidna cheikh radiallahu taala anhu dafa waxoon ne bi seyri zamanika sir booy dox doxal ni sa jamono di doxe taawam Seyd Ben Omar mi ngi nii ñun biñ nekkee ker di jàng ñëw na fa di liggéey ci organisation boo xamante ne nii ci wàllu mbay nuñ koy tàggatee ci àddina ba ñépp mën cee jublu di ko def diplôme am yu kawe la te màcc na ci côté boobu ndax dem na fu nekk ci Afrique ci ay daje ci ay jotaay yoo xamante ne nii ñoo koy invité daggal ko bi pour mu ñëw indi xalaatam nu ñuy def ba réew yooyu noonu développé ci wàllu mbay gis nañ Seyd Ousmane Kane bi ñuy def conférence islamique bi fii nii ci dakaar bi mu defee discours ba pare képp ku ñëw gannaawam muy ministre ministre bi amee affaire religion ci marok ak président Macky sàll ak ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee di wax ci gannaawam kenn ku nekk dana wax ne comme ni ko professeur kan waxe mooy ne kon xamoon na ne dana am jamono ju ñëw danañ soxla loo xam ne dafay dend ak alxuraan ba nga xam ne du ñu aybaale di ñu sikkee ne daaral rek lañ xam mu tàggat ñoo xam ne dañoo mën ci côté bii fa tabarakallah macha allah mën tamit ci beneen bi te ñooñu duuñ rek doomi senegaal yi waaye Afrique néew na foo fay dem te doo fa fekk ñoo xam ne ay ilimaani ay zaawiye lañ ay jàngalekat lañ te nekkul ne fii lañ leen tàggatee bañ pare xale yi ni jóge daara al muyassar bu cheikh abdallahi ibn cheikh mohamad al amin seen sëriñ ci daara ji nii la jóge muy daaral quran xale yële jugee daaral ihsaan bu Chérif El Hadi moo wax léegi ne Cheikha moo tax mu am ittee gu toll noonu moom it yemut ci jàngale bi mais léeg-léeg mu am ay jotaay yoo xam ne bitim réew lay nekk moom ak ña koy def ñoom ñooy nekk di koy organiser di ci invité ay borom xam-xam ñi ñëw di koy fekkee kon haadihi athaaruna tadullu alayna fanduru baadana ila al athaari gi Oustaz Aboubacar wax léegi mooy boo xamul ñun la ñan suñ jeexital yaa ngi nii xoolal suñ gannaaw liñ bàyyi bu boobaa boo ci sukkandikoo danga xam ñun la ñan oustaz wax na bi ñuy lijjanti këyitu daarul quran karim foofu dama fa bëgg a ubbi benn entre parenthèse ndax daaw dama fekkee jotaay boo xam ne ña ko doon def dañoo bëgg a samp daara fii ci dakaar boo xam ne daar al quran al karim la tudd ma bugg nag ñun ñëpp ñi ànd bàyyi suñu xel ci loolu ndax loolu am na boroom te alxuraan bari nay tur yoo xam ne nit mën na seet neneen num tëggee mbiram te du laal loo xam ne ba muy am ñun ay xale yu tuuti lañ te comme am na kayit yaakaar naa ne lu ñu war a mën a doxloo pour toppatoo ko ba ma génne ci jotaay boobu on a Seyd Ben Omar on a Seyda Asiya pour wax leen ñi bàyyi seen xel ci loolu ndax daarul Quran moom buñ ko déggee fii nii ci dakaar rek kër yi fii lay ñëw ci Mermoz fële ci sacré fële ci 9 avenue Malick si ak ci paduwa ak ci yeneen yi nga xam ne moo leen jur ci Afrique kon yëfu Cheikh Marème la xalaat ci Cheikh Marème la signature Cheikh Marème la waruñoo nangu ñi xaar nag ba tey mu am ñoo xam ne ñëw nañ bugg a jël tur woowu noonu ci ñun ndax Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu maqaama bi mu am ci bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi bi mu amee ñu bëgg a xëccoog moom maqaama boobu daf ne ay na nii la fii xiiratin mi man yarumu muhammada bàyyi bañul kenn bugg yoon sallallahu alayhi wa mais maqaam ba ba mu àgg ci mbëggeel yoon sallallahu alayhi wa sallam ah, boobu moom ah, bul ko xëccoog moom man nag damay sant yàlla ci teew ci jotaay bi ak ci bépp jotaay boo xam ne dafa ñeexal suñu waajur Cheikh Amareem suñu waxee suñu waajur man dama nekk xale bu ndaw bi ma juddoo ci ay ñeenti juróom juróom benn at di am bët yu naqadi yoo xam ne saa yu nekk mi ngi jaune ci dundu baay baay di may yebal yebal sama yaay mu indi ma ñu ñëw neuf avenue Malick Sy moo ñu doon yóbbu ci oftalm bi nga xamante ne ni moo doon saytu sama bët yi di koy seet xaw ma lan mooy un xaw lan mooy deux mais daf naan ma ndax bii benn la indiwaat ñaari ñaari tere ak ñett naan ma bi ñaata tere la bu ma ne ñett mu tëb wàcc ci beneen bi ne ma bii ñaata la ma ne deux mu tëb dem ci beneen bi bii ñaata la ma ne juróom parce que xaw ma sax lettre nuñ koy tudde diggante may am juróomi at ba juróom-ñett juróom-ñeenti at waxtu wu nekk dama daan ñëw di seet sama bët yi te boobu Cheikh moo nekkoon ki nga xamante nii ci loxoom lañ doon nekk moo ñuy yóbbu lépp lu ci war moo koy def moo tax dafa ma daan wax yow bàyyi daf ma laa dénk may sawar ci loolu noonu lool ndax kuñ dénk Cheikh Marème rekk dénk nañ la ku wóor ndax oustaz aaj mii ne bi muy ñëw ci moom juróomi at la am lim fi wàcce tey ci xam-xam ak liñ ko limal ci ay téere yoo xam ne moo ko bind ak conférence yi mu wax ne mi ngi koy dem ci biir ak ci biti réew kooku ki ko préparé jigéen ju màgg la li ñuy jëriñu ci jotaay yii nii mooy ñun góor ñi nu ñuy def ba mel ni moom jigéen ñi tamit jéem a góorlu ne ñun tamit nu ñuy def ba mel ni moom mën nañu wax suñu xel ne jamono weesu na mënuñoo mel ni moom ñu ne kon naka lañuy amee ay doom yoo xam ne dañ leen di tàggat bañ mel ni ñoom ndax roy nit ku baax ak roy jëf ju baax même boo àggut cafam fam àgg sax yow texe rek nga ciy jëlee ndax tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiraami falaahu yàlla def mu óolu woon ma ci mbiram yu bëree bare bëri am na ci lu mu mën a wax am na ci loo xam ne mënuma koo wax am na lu Chérif tudd kene alhamdulilah keroog ba muy teg première xeer këram mu nekkoon bu ñu gàmmuwaatee ba ci suba teel ga di 19 rabiul awal alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi moo teg xeer bi mu ne ma Abdou dénk naa la liggéey bi liggéey boobu mooy liggéey boo xam ne fa tabaarakallah macha allah karaama gi ci am man sama bopp sax man daf maa dépassé. ci ni liggéey bi gaawee ak ci ni xaalis ñàkke woon ci jamono jooju léeg-léeg bu foree dara ne nañ ko ma ko yónnee mais loolu barke daf ciy wàcc ba nga xamante ne nii man mi nga xam ne yàgg naa tabax xam naa ne loolu karaama daf cee bokk yàlla teralee ma tamit na ñëw na ay yoon kawlax yoo xam ne sama kër lay taamu pour nekk fa gane ma foofu noonu ay fan yu bari te buy dem tamit du bugg a dem relasiyon ak alxuraan képp ku miin di ko fréquente des fois mën nga ñëw fekk ko mu tëdd ci lal bi di nelaw ay temps sax nga dégg ko mu xandoor bu xale yi di jàng alxuraan ku ko yàq rek nga dégg mu ne hum defaral la nga delluwaat mu delluwaat ci nelaw yi mooy ne kon nopp bi moom mi ngi sax di dégg li xale bi di wax xol bi tamit mi ngi corriger li xale yi di yàq te suñ noppee tamit xam nga kuy nelaw normalement biir wi daf ko war a déranger mais ñoom suñ noppee ci la yeewu ne leen tari leen bu ñuy tari tamit muy nelaw te buy nelaw bu ñu yàqee mu gàgganti leen loolu yéeme na te yàlla defal na ko leetar yii ñu ko limal bàyyi bind ko ko mu am yeneen yoo xam ne gannaaw bàyyi Seydi Ali Cissé bindal na ko ko ndax bàyyi joxoon na ko lijaasat taqdim mu réer ko Seydi Ali bee salaat lijaasa boobu noonu bindalaatal ko ko defal ko ndigal tamit ci lim amee ci ay secret te amoon na ay secret yoo xam ne yéemoon na sax ay mbokkam ndax mën naa jële nit fii nii yóbbu ko ba bitim réew mu dugg avion te amul benn kayit du am passeport du am sax kayitu judd mu yóbbu ko mu tukki mu indiwaat ko mu ñëwaat te dara du xew waaye man karaama gi nga xam ne moom laa ko gën a nawee te mooy li nga xam ne jël na ci cër bu mag ci baayam mooy alxuraan ji nga xamante ne nii moom la nangoo nekk xaadimam di ko liggéeyal guddi ak bëccëg fu mu dem mbiram alquran lay wax mooy jigéen joo xam ne moo njëkk a dugg siège yu rabitatul alam al islami te bim ñëwee ñi naan ko fii jigéen ñi duñ fi dugg ay aay yu leer la leen indil wan leen ne leen alquran mësta tàqali góor ak jigéen innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat man amila saalihan min dhakarin aw untha yooyu noonu yëpp li leen indil rek ba xam ne kii nii li muy wax am na ci dëgg ñu ubbil ko bunt yi na ko duggal bu ñu buggoon di wax ci moom ba àjjuma dellu siwaat danañ wax lu bari waaye danañ bàyyi tamit lu bari danañu wax ci yërmaaneem ni mu doomu aadama en tant doomu aadama ndax bëggul kenn xiif bëggul kenn mer bëggul ñi jël benn doom sànni waaye dafa bëgg a nekk ndey njaboot gi suñu waxee ci moom danañ wax ci tabe koo xam ne daf doon joxe ndeyjoor ak càmmoñ te jox nit ki tey du ko tere bu ñëwaatee suba mu joxaat ko danañ wax ci liggéeykat boo xam ne dafay liggéey ci turu yàlla am ay secret yoo xamante ne nii lii ci baayam lii ci mu mën di ci def ay tasarruf yoo xam ne saa yu nekk nit ñi dañuy jaaxle sax kii nu mënee def lii fekk am na baatin bu mag a mag a mag boo xam ne mi ngi ci biir su ñu toogee di koy fàttaliku ñun ñooy jëriñu ci fàttaliku gu moo mm, ci fàttaliku gi ñu koy fàttaliku suñ toogee di koy ñaanal ñun ñooy jëriñu ci ñaan gi ñu koy ñaanal suñ toogee di koy tagg tamit ñun ñooy jëriñu ci tagg gi ñu koy tagg shaar bi di mu nuyoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa jiitu baabaka maadihan bal daa'iyan woy ko ay woyu rafet ba pare ñëw ne ko nag ñëwuma pour tagg la mais damaa ñëw pour ñaan damaa ñëw pour ñaan ñun tamit bés bii di bési àjjuma nga xam ne bés bu barke la ci la yàlla bind aadama alayhi salaam ci la ko dugaloon aljanna ci la ko wàcce fii ci suuf ci la bés penc di taxaw waxtoo ngi ci boo xam ne bu tombee ak jaam bi di ñaan yàlla yàlla dana ko nangul li muy ñaan te ñun waa tariqa bi dañoo jàpp suñuy sëriñ dañoo jàpp ne mooy waxtu wi nga xam ne ci lañu doon def zikr jumaa Cheikh Ibrahim ci tafsir alquran bi Mouhamad toxal ci kase yi def ko ci ay livre première volume bi mën nga dem liir ba lu mat trois cent et quelques pages doo xam ne kii wax ni tijaan la waaye boo ko paasee tuuti bu muy wax ci ngëneeli ajjuma ba agsi ci tàkkusaan ajjuma mu ne lii moom yàlla ñun tariqa tijaan yi rek la ko jagleel ñoom ñooy ñooy toog ci waxtu woowu noonu di tudd yàlla ba timis jot suñu toogee di ko ñaanal mel na ñi ñu koy ziyaare te ziyaare koo xam ne ak wilaayaam dafa mat te dafa dëggu dafa jaadoo man sabatat wilaayatu wilaayatu wajabat xidmatu képp koo xam ne wilaayaam mët na rekk liggéeyal ko war na te lii xeet la ci liggéeyal ko ndax ñi ngi bugg ñun ñi xam ki ñu am kan la waaye tamit ñu ngi bugg suñ doom yi nga xam ne ay xale lañ ñi yàgg dégg seen noppu ngëneeli soxna su tedd si pour ñu jéem koo roy pour àgg ci maqaama bi nga xam ne àggoon na ci ànd ak ne lu jafe la waaye yàlla am na ngëneel te waxtu wu nekk mi ngi koy mayee yàlla ñu ko yàlla may ñu ngi gërëm njaboot gi di ci jiital alxalifa cheikh Tijaani bin Omar kan ak mboole mi rakkam yu góor ak yu jigéen wax na léegi ne nañu ñaanal Seyda Asiya ak Seyda Habiba kene ñi ngi am daara ay daara alquran comme ni ko seen yaay amee woon nañ leen ñaanal ñoom it seen daara yooyu noonu yàlla na ko yàlla yéegee ci barket daaru quran ba ñi àgg fépp fu daarul quran àgg yàlla nañ ko àgg yàlla yàlla na fa daara yooyu noonu àgg ak képp koo xam ne ci daara ji nga génnee wala ci daara ji nii nga aju ñu ngi koy gërëm moom Cheikh Ban Omar Kane di gërëm mbooleem rakkam yu góor ak yu jigéen waaye tamit di gërëm mbooleem sëti Cheikh Mariam yi rawatina Cheikh Baye kan mi nga xam ne ñëw na ba Medina mu ànd ak délégation di wër dëkk ba di yëgle bés bu màgg bi di ñaan yàlla di wax nit ñi ñaan yàlla ñi àgg ci te yàlla defal ñu ci barki moom tamit ak képp koo xam ne jàppalante na ak moom ci liggéey bi dimbalante na ak moom ci liggéey bi ci alal ci xalaat ci kàttan ak ci lu mën di doon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay leen seen jëf ci barke borom bés bi di alwalida cheikh Mariam bint cheikh Ibrahim Niass di gërëm di sant képp koo xam ne tamit oo nañ la nga uy si te jotaay bi jotaay yiw la te de jotaay yiw nit dana ci ñëw ba dem sax te du xam nga ngëneel li nga xam ne am na ko ci jotaay bi ndax amul kenn ci ñun koo xam ne bi muy départ leneen nekk na ci xelam lu dul ñëw ci zikr juma ak déglu ay jikko yu rafet yu kawe ci jigéen ju tedd di doomi ay nit ñu tedd di sëti ay nit ñu tedd ñi ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla na sax te yàlla na continuer te yàlla nañ dem ba nga xam ne dootul xajati ci sharia bi nii te lépp luñ fi ñaan ñi ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul xale yi nekk ci daara ji yàlla na yàlla def alquran seen dënn xale yi nekk ci daara yépp tamit yàlla na leen yàlla yombalal alquran ba pare tegal leen ci xam-xam ba nga xam ne danañ yëkkati drapeau Cheikha Mariam fu nekk ci Afrique ñi koy fàttaliku di ko xalaat di xam ne lii nii liggéeyam la mu moo ko fi bàyyi alhamdulilah dugg na ci taarix ba bokkatut ci ñi nga xam ne dañ leen di fàtte ëbëdan liggéeyal na diine ak alquran loo xam ne ba yowmal qiyaamati dafay continuer di sax yal nañu yàlla taas ci barkeem te yal nañu yàlla dimbale ñi mën a continuer jëf ji wala sax ñi mën di ko def lu bëree bëri ci at mi ndax kiñ am dayo bi toll na noonu wala ëpp na ko te yàlla am na loolu mën na ko yàlla na ko def maa ngi jéggalu ci guddal bi di sant di gërëm ñi nga xam ne oo nañ ma ci lii nga xam ne man buñ ma ci oowutoon sax su ma ko déggee dama ci ñëw ndax dama koo jàpp muy loo xam ne sama mbir la ndax dama cee bokk di ñaan yàlla mu defal ni lijaaba na sànq dafa ñëw ne ma da wax nga waxaat bu ñuy tëj mën a ko déedéet benn yoon laay wax ndax dama mébét mu nekk ne miskul xitaam dañ koy jox alxalifa Cheikh Ben Omar mi nga xam ne gannaaw bi mu doonee lim doon gannaaw bi mu doonee doomi ñim doon seen doom di awalu man laqiitu bi dakaar muy Cheikh Alhaaj Omar Kan ak Cheikha Mariam fàggul na boppam lu bari tamit ba nga xam ne li muy tudd yàlla fa tabaarakallah allah ci bés ak ci guddi moo ëpp li muy wax te yoon sallallahu alayhi dafa wax ne taarrafu ilallahi fi raxaa'i yaarifkum fi shidda dee leen tudd yàlla ci bi jàmm di am ndax bu jafe-jafe amee rek bu ngeen ko tuddee mu uyu leen moo tax dañuy tàmm mu nekk ne ñaan googu noonu incha allah moom moo ñu koy ñaanal ñaanal ñu mbooleem suñuy soxla ñaan yàlla tamit mu defal ko lijaaba te nangul ñu suñu jëf yàlla am na loolu mën na ko yàlla na ko def wa ma dalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barhaamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan